waa présente. waaw d' abord damay sant yàlla bu baax euh, avant tout aussi di euh, féliciter sama adversaire bi ma doon muy Balla Gaye yàgg naa ko wax ñun ñëpp ay frères lañu ñooy mayante xaalis ku nekk yaa sa trésor morom euh, avant tout maa ngi koy masawu masawu coono parce que waaj combat dafa métti parce que combat préparé nañ ko un ñu ba mu desoon trois jours ñu reporté ko ñu jàppaat ko quatre mois. nekk nekkaat préparation métti wax dëgg yàlla mais comme yàlla def na mu jàll ak jàmm alhamdulilah euh, bu ma si jógee damay gërëm sama staff staff yëpp nag ñëpp ñëpp entraîneurs yi mbër ñëpp famille bi parce que depuis combat bi taxaw ak léegi kenn amatul jàmm waaw ku nekk li nga war a nekk yaa ngi ci euh, daj coono comme man waaw kon nag bu yàlla defee tey li am damay sant bu baax di gërëm aussi population Mbour gépp du ma ko yemale mbuur mais mbuur laay njëkkee parce que damay wax ni mbuur laa doore mbuur ñoo ma jàppale mbuur ñoo may lu ma lu ma fu ma egg si àdduna mbuur ñoo ma ko def kon man lu ma am rek guddi guddi mbuur laa koy indi euh, di gërëm Sénégal yëpp nag parce que tey ñi ma ñaanal dañoo bari ñenn ñi sax dañ may ñaanal di ko nëbbu parce que ni mu demee la woon côté côté bi ñu dëkkee mais sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. waaw ah, yow bu fekkee ne avantage bi ñëpp ñu ngi koy wax en tant que Ndeye Mbilit yow noo ko gisee. waa arbitrage bi man li ma wax rek mooy que euh, arbitre ay nit lañu ay erreur am na erreur arbitrage ku ne xam na ni dama ko daan jël bu leer parce que dañoo def ñaari saak euh, dañ ñi pour arbitre atte foog da ngeen di génn deuxième saako bi ku ne xam na ni bi ma koy daan ñu ngi si premier saako bi action bi ñu ngi ko entamé si biir géew bi mu jeexe si diggante ñaari saako yi pour man arbitre bi day joxe verdict mu waat si samay staff ne ma aussi euh, demal nga bëriwaat parce que boo demee ak euh, xam nga amateur li ñuy xaar nii day yàq làmb te man defe naa lu yàq làmb waruma ci ne waruma ci nekk te gëm naa ni bisu tey moom mënu ma daan. ndax bu ñu doon bëree fii ba suba mënu ma daan. dama ko gën a pare. dama ko gën a pare gis nañ nga jox ko sa dama ko gën a pare. parce que dama ko gën a pare. waaw maa gën a pare fuuf. am na jamono ngay wax ak wax la woon lan la wax noonu. waaw xam nga làmb moom dafa am bataille psychologique. mooy souvent da lay fekk si géew ne la mënoo maa daan maa la ëpp doole nanga mais man benn conseil laa koy jox mooy mbër booy bëri moom da koy jox cër. da nga koy jox valeur. pour boo ko daanee wala bu daane daanee mu valeur. mais di bëreeg mbër. xam nga lu ne nga wax ko di ko jéem a minimiser te ko man loolu mënu ma déstabiliser parce que mental mental de fer laa yor. moo tax doon fecc noonu fecc yi doon fecc la. waaw contraire loolu si moom lañ ko yaakaaroon parce que moo gënoon nekk xale moom moo gënoon a mën a def ambiance pour jéem a merloo mais yooyu jeex na. yàkkamti combat ay merci combat ay yooyu loolu moom suñu ginnaaw la nekk. loolu indi loolu indi loolu ba ñu gis ba mu jël beneen. ba mu ex ex bon ba màggee nag expérience day ñëw làmb nee naa la. man nga teg samay archive pour mbër moo xam ni moo ma jàpp ni manœuvre ma daan ma dañ koy compter su ëpp man def erreur fougue de jeunesse bëgg la ñëw jëlee la fi léegi yàq sama combat daan sama bopp. mais Serigne Serigne Serigne gis nañ leen. Hmm. Euh, maslaa nga léegi léegi ak arbitre bi. Hmm. mais gis nañ ne féete gi dafa féete jama dafa jamono ji ngeen di dugg ci làmb bi. ñu ne seen bagage yi nekkoon ci oto bi oto boobu du dugg ñaareel bi sa côté gis nañu ne arbitre bi ñëw ci moom ne foo mu tekki ay gàllaajam donc PT bi vraiment est-ce que yow gis nga ko parce que ñëpp daal ñeeku nañu. waaw mais loolu loolu loolu adduna bi ñoo ko gis. làmb tey bi mantal moo koy gañe foog nga mental bu dëgër pour nga mën si génn parce que boo seetee man mbër yëpp maay jógee Mbour dem bër ñoom Dakar. ñoom du jóge Dakar ñoo bëri man Mbour maa leen di fekki souvent dafay bëri yu sew sewaan yoo xamante ni bu làmb jeexee sax doo ko bëgg a wax mais dafa bëri yu sew sewaan yu si am si arbitrage bi si si si favoriser kee day ñëw dugal dix personnes nga ñëw ñu ne la trois ngay dugal nga gis kee dugg si géew sa adversaire dugal di personne à la fin dama ne gars yi nañ nañ nañu respecté lu ñu wax rek en tout cas lu coow li mënti xew man ak moom ñoo des si géew te bésu tay bii du bis bu ñu daal. sa waajur góor dafa wax ne dafa bëgg nga nekk troisième am troisième titre troisième roi des arènes. troisième couronne. incha allah euh, roi des arènes incha loolu sama sama mébét la parce que làmb souvent damay ñëw toujours exception laay def man parce que man rek maay fi seul seul lutteur bu nekk roi des arènes deux fois ma perte ko ne leen dinaa ko jëlaat ma jël ko tey bari na samay moroom yu arrêté si quarante cinq ans man ren la quarante cinq ans. ñoom baaboo yi ay Yékini biñ toll dañoo bàyyi te yàlla def may leen man si quarante cinq ans dinaa leen won ni góor day am quarante cinq ans dem doole. lan lan moo waral lan moo loolu. loolu da nga am hygiène bu baax da fonk sa bopp da xam heure bi ngay tëdd xam looy lekk xam looy naan man lépp lu may def c'est c'est naturel. c'est c'est naturel. waaw. sama dina bi moom mooy waxaat ndax wér na wala wér gu ba léegi parce que man dama ko ni bi njëkkee bëri da nga ni wéroo da demal nga faju ji ba wér <laughs> su ma la daanaatee nga xam ni ku wér la daan te moom moo waxal boppam ni faju na ba wér te ma daanoon ak kii du benn wax waxam donc defe naa wér na am déet. mooy nekkaat des arènes troisième fois. yaa ngi dem maa ngi eh, ñaari combat MMA. waaw am naa dese naa ñaari combat MMA dese naa komba ak Eumeu euh, gason tey am na date bu ma wax peut-être fin mars ñaari fan laay noppalu suba ginnaaw suba maar mardi ma tegaat ko si parce que man maa choisir nekk sportif kon toujours dama si nekk yàgg naa ne aussi su ma demee ba li ma doon sentir si sport mënatuma ko. xale yi may àndal entraînement ñu ngi may gis ñooy nekk ngoon bu nekk su ma demee ba li ma mënoon mënatuma ko maa njëkk xamal sama bopp ni li mënatuma ko ma arrêté maa ngi ñaan nag su ma demee bay arrêté maam releve boo xamante ni mbuur du fay lii nii du fay parce que tey ma bàyyi làmb rek mbuur fay si làmb loolu baaxul. kan moo si leen naa bari nañu Boy Mbour mu ngi fi général Diouf mu ngi fi. Santander mu ngi fi Pakala assurance ñoom ñoom Obamani ñu ngi fi ay booy yu bëri Ama Baldé booy yu bëri bëri ñu ngi si écurie yi ñoo ku mel ni ñoom ñoom Pàccam ah euh, booy Ngaay ñoom Mbour la ñu dëkk tey su may bàyyi ñooñu war na fekk tey ñu téye flambeau bi ba nga xamante ni dañ naan kii bàyyi na mais ñun duñ ñun ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo téye flambeau bi. yow ak euh, Balla Gaye ndax di ngeen bërewaat deuxièmement couronne bi ngay wax ni moom nga bëgg a jëlaat tey mu ngi diggante Eumeu Sène ak euh, Modou Lo te ñoom ñaar ñoo daje jiwaat léegi nag loo xanaa loolu mooy ku daan ci ñoom da nga koy jël. xam nga man lamb ji ma sëpp adversaire waaw tey maa ngi bëri ak Eumeu Sène hmm. Modou Lo ak Ama Baldé ñu ngi bëri sama adversaire lañu hmm. ki daan ak fa daan maanaam bu dee Modou Lo moo daanaat continuer ak maa koy may revanche Ama Baldé bu dee moo daan jël roi maa ngi moom ma kon man lamb ji maa sëpp adversaire dama bëgg incha allah rabbi am ndam si Eumeu Sène kii daan si diggante Modou Lo Ama Baldé ñu bëri waat titre roi des arènes bon loolu si moom lay des aussi sans dépense si promoteur yi aussi parce que yàgg naa wax ni mbër mu ragal moo moo dul may revanche am na ñoom bu ñu la daanee benn dañuy bi dem si leneen parce que gëmuñu li ñuy def su bëggaatee revanche bu bu ko neexee ñu bëri waat léegi ba ma di MMA bi sa défaite bi deful la dara. non non non parce que man maa choisir euh, def comme euh, de combat sport de combat lu nekk mën na la si arrivé mais heureusement que sénégalais yi ñu bëri bëri bëri bëri bëri bëri dañ ma si encouragé bu baax na ma da nga demoon représenté Sénégal dew ma rek am defet dama dem am victoire amat amat soog am defet bi ma ñëwee ñu ne ma dañ lay encouragé parce que da nga demoon défendre foofu nag foofu nag góor yàlla ñoo fay dem de. waaw mbëru Sénégal yi ñu bëri bëri boo leen waxee dañuy bañ. production présente.